di wax ci loolu parce que dama gis dossier. Mhm. Euh, déposer dossier préparer dossier. Mhm. Euh, gis nga li ñuy wax sa dossier su matul. Mhm. duñ ko étudier duñ ko analyser. président Ousmane Sonko. parrainage des élus la teg la tegee. il a ses treize députés. quittance bi am na reçu de la caisse des dépôts xam nga lan la amul. attestation bu ñu ko bañ a jox. attestation nag moo tax suñu acharnement amul. acharnement am na pour une raison simple. dañuy wax aussi loi parce que vraiment j'ai bien aimé c'est un grand intellectuel loi daf ne suñ la bañ jox fiche de parrainage demal tribunal nga laajte ko su ko tribunal ne am nga ci droit tout de suite après c'est le code électoral article 47 point 4 daf ne c'est d'application immédiate nañ la jox sa fiche loolu aussi man du ma juge du ma procureur du ma conseil constitutionnel mais acharnement bi am na pour une raison simple joxuñ ko fiche parrainage am attestation bi laaj na ko ba ay huissier mu mujj dépêché pour ñu mun ko def léegi nag son représentant a déposé au conseil constitutionnel son dossier a été reçu. Mmh. ba tey mu nekk quatrième sur liste de parrainage. Mmh. mais ñun amuñ benn xel ñaari xel que il a un bon dossier pour une raison simple. casier judiciaire bi ñu laajte moom bosam dafa vierge. Mmh. il y a des en cours dëgg la. c'est sûr il y a des en cours mais damay fàttali rek ne Barthélémy Diaz dafa jógee prison. dem assemblée nationale comme député. Ama Amadou au Niger. prison la jógee nekk président de la république. am na acharnement foog ñu nangu ko pour une raison simple. depuis ñu dàq ko en 2016 je suis pas le défenseur de Ousmane Sonko parce que ñun gëmuñu un homme providentiel ñun équipe la ñu wax ma tax sànq bi wax ne amu programme ma ne attention Ibrahima ñun on est parti des assises nationales. non ah, ah non parce que laaj ñu laaj ñu waxu programme. Ah, je pense très honnêtement la coalition Sonko président mais plus largement le LACOS. man bokkuma Yewwi. ben Benno ñun LACOS lañ bokk c'est les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko. le pas l'ex-Pastef ñoom les patriotes sont la locomotive. Mhm. mais am na vingt autres organisations ak ay citoyens dama en terme de programme ñun on est parti des assises nationales parce que les orfèvres les artisans des assises nationales <coughs> nañ ko tëgg loolu bus bu campagne bi jotee dañ ko yaatal mais sur le plan juridique li mu wax dëgg la ñu ngi xaar nag conseil constitutionnel addu su addoo mais naturellement ñu nangu ko pour une raison simple jël nañ dossier bi xool nañ ko mais dossier bi mu déposé mat na mm. li matalul amuloon possibilité jot ko parce que fonctionnaire rek ko ko woon a jox ñoo ko ko bañ a jox. moo tax nag ma ne il faudrait qu'on s'interroge waaye li matalul mooy il n'a pas eu l'attestation de la caisse des dépôts. Mm-hmm. amul euh, attestation l'attestation amu ko. dafa am contradiction non l'attestation amu ko dossier bi mat na ak li matalul. waaw parce que ça pose problème non ça pose pas de problème parce que dama ne mm-hmm. moom fay na chèque. à la caisse des dépôts ñu jox ko délivrer ko une quittance mais cette quittance là mm-hmm. n'est pas une pièce du dossier le le patron de la caisse des dépôts daf ko war a def une attestation mais mu bañ ne du ko def Euh, le la bagarre qu'il y a eu pour les fiches de parrainage fekkee ngeen ko. ba tey Sonko nekkul si li ma ma ne waaw non mais euh, Babou man je ne suis pas avocat. Mhm. je ne suis pas juge. je constate je suis membre d'une équipe. boo xam ne Sonko est notre candidat au niveau de Sonko président le dossier qu'on a déposé au conseil constitutionnel ñoom nangu nañ ko ba convoqué ko pour roi son parrainage ma dala xelu askan bi yëpp nag nee nañ parrainage am. dafay jàll nangu def nañu accusé de réception rek. non non mais nañ ko. un dossier reçu parce que nangu ko mais c'est la non non non il a deux choses. Mm-hmm. il a il dossiers qu'on reçoit. un mm-hmm. dossier doit être recevable. Mm-hmm. il a des dossiers qu'on étudie. et ensuite il y a la validation du conseil constitutionnel. de processus. defal nañ ko dossier bu set wecc bi ci ëpp solo bu intéressé sénégalais yi mooy son casier judiciaire délivré ici son casier judiciaire est vierge yes, maintenant li ñu yàggatul mhm. parrainage baax na parce qu'on a eu des députés yu dem ak moom donc lan moo ci des rek xam nga dañ naan ragal nañ ko ragaluñ ko c'est peut un jeu politicien mhm. mais très honnêtement quand on voit sa percée politique mhm. depuis qu'il était député élection on a gagné les grandes villes je parle de locomotive. Mhm. moo tax ma ne euh, yàlla dafay boole. Mhm. gis nga euh, la locomotive. du de l' on a gagné les grandes a gagné les grandes villes. non je a deux a eu deux coalitions Buntu bi est arrivé troisième ou quatrième dama les patriotes étaient la locomotive de la coalition Yewwi. Ah, je parle de locomotive. dama les patriotes ñooy locomotive coalition Yewwi Askan Wi. Euh, euh, PDS bi ñu manqué parrainage ñoom ñoo leen ñoo leen dimbali ci élection législative bunt bi réussir na parrainage am ñun on est maître d'œuvre là-dessus deuxième élément loolu am na solo ñu koy fàttali quand même mm. que déposé nañu ne nañ je d'ici quelques semaines ñu analyser document bi. mais nañ xaar ba conseil wax. on ne peut pas maintenant procès en cours. Mm-hmm. ñun mënuñu ko wax mënuñu ko wax.